الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فمن فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من العمل الصالح ويتنافسون فيها فيما يقربهم إلى ربهم والسعيد من اغتنم تلك المواسم ولم يجعلها تمر عليه مرورا عابرا ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ci fukki fanu tabaski bokk na ci xéewal yi yàlla tabaraka wa taala jagleel ay jaamam waxtu wu nekk moom yàlla mu indi leen ay bés wala ay waxtu wala ay fan wala weer wala jamono joo xam ne def leen ci dubleel seen jaamu yàlla bokk na ci xéewal yi yàlla defal jaam ñi waxtu wu nekk yàlla indil leen ay jamono yoo xam ne day nekk mawaasim li taat promotion pour topp yàlla ndax jaamu yàlla yi bëril ci lu ñu koy topp moom borom bi tabaraka wa taala bëril ci ay jëf yu baax jaamu yàlla yi jóg njëkkalante ci jaamu yàlla yooyu pour jege ko moom borom bi tabaraka wa taala ki texe nag mooy waa ji nga xam ne jël na occasion ci waxtu yooyu def na ko jamono bénéfice jamono jaamu yàlla pour jege ko moom borom bi tabaraka wa taala kookoy ki muus suñ nee waxtu wii bëccëg bii bis bii jamono ji weer wii ku ci jaamu yàlla nangam ngay am ki muus mooy ki nga xam ne man irtanama tilkal mawasim kookoy ki muus mooy ki profito ci jamono yooyu ñu ne ku ci jaamu yàlla am nangam ki muus mooy ki profito jaamu yàlla ci waxtu yooyu amul benn jamono bu yàlla di diggee ne ku ci def dara am dara yàlla def ko muy waxtu woo xam ne dafay gaaw rek daal di romb daal di dem mu daal di jeex déedéet bokk na ci fukki fan yi jamono yooyu yàlla defal nu pour ñu war ci profité mooy fukki fanu tabaski wa hiya ayaamun shahida laha rasul sallallahu alayhi wa sallam bi annaha afdalul ayaam sunu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy ki seedeel fukki fanu tabaski ne moo gën ci àdduna bu ñuy xool bés bi gën ci bés yi dañ naan bésu àjjuma la guddi gi gën ci guddi yi ñu ne waxtu lay guddi gi laylatul qadr la bés bi gën ci bés yi ñu ne bésu àjjuma la weer wi gën ci weer yi ñu ne weeru koor la dëkk bi gën ci dëkk yi ñu ne makkatal mukarram yonent bi gën ci yonent yi ñu ne muhammad mbokk yi bëccëgi àdduna yi yan ñoo ci gën mooy fukki fanu tabaski yi nu nekk ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax loolu ba mu ko waxee ba pare yemu ci waaye wa hassa ala al amali salih dafa xiirtal nit ñi soññ leen pour ñu jaamu ci yàlla def ci jëf yu baax bal inna lillahi taala aqsama biha bal sax bis yooyu yàlla def cee giñ kon suñu màggul woon yàlla du ci giñ kon yàlla bu giñee ci bés yooyu lu muy wane mooy bés yee màgg moo tax yàlla giñ ci wa hada waxdahu yakfiha sarafan wa fadalan id al azim laa yaqsimu illa bil azim giñ gi yàlla doy giñ ci fukki fan fukki fanu tabaski lool dogg dina doy ne bi guddi yu màgg la bëccëg yu màgg la ndax kat ku màgg du giñ ci lu dul lu màgg comme yàlla dafa màgg moo tax mu daal di giñ ci fukki fanu tabaski wa hada ayuha al ahbab yustadaa min al abd an yajtahida fiha loolu lu muy wane mooy yow jaamu yàlla bi yow jullit bi góorgóorul waay nga góorgóorlu ci fukki fan yi nga jaamu ci borom bi tabaraka wa taala nga góorgóorlu ci jëf yu baax nga góorgóorlu jublu bëccëg yooyu ci am tiyaaba ak màng yiw wa fi hadihi risala ayuha al ahbab ci sunu xutba tey bii bëgg nañ bayaan li fadli asara zilhijja bëgg nu leeral sunu kemtalaayal kàttan ngëneel yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci fukki fanu weeru tabaski wa fadlul amali fiha wal amal al mustahabba fiha bëgg nañ wax ngëneel yi ci nekk waaye bëgg na noo wax it jëf yu baax yi nga xam ne doomu aadama war na ko cee baril waaye tamit bëgg na noo wax ne doomu aadama kat jullit bi kat jëf yi lañ gën a bëgg mu def ko ci nasalu allah taala an yarzuqana xusnu listifada min hadihi alayam wa an yuinana ala igtinamiha ala alwajhi alladi yurdi noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu wërsëgal ñu ba ñu jëriñoo fukki fan yii waaye mu dimbali nu moom yàlla ndax kat lu nekk ndimbal yàlla moo ciy dugg su ci ndimbal yàlla sot nekkulee mbir moomu du sotti kon noo ngi koy ñaan moom borom bi jalla jalaaluhu mu dimbali nu ba nu mën a màng tiyaaba yi nekk ci fukki fanu tabaski ñu jaamu ci yàlla ci yoon wi nga xam ne moom yàlla tabaraka wa taala yoon woowu la gërëm waaye mbokk jullit yi ku dellu si waat tuuti di xool xeet wi ci ni leen yàlla nattoo ci waxtu jaamu yàlla yépp fo lañ koy def fi mu nekk nii boo duggee ci dëkk yi boo duggee ci kër yi boo dajeeg mbooloo mi góor ñeeg jigéen ku nekk nga koy laaj di nga gis ku nekk am na leneen looy préparé ci fukki fan yii lu dul jaamu yàlla ñee nga ca marché ya ñee nga ca daral ya ñee nga ca ñee nga ca ñee nga ca allahu akbar est-ce que fukki fan yii ñun li nu jublu loolu la yonent doon jublu maanaa tey booy xool jaamu yàlla yi secret yi dafa jeex falsafa ibaada bi dafa jeex lu nekk rek dañ koy def à la forme ñëwal ci julli dañ koy def à la forme taxaw kabar teg sa loxo sa dënn ruko siggi sujjóot asalaamaaleykum bu waa ji paree nga ne ko loo jëlee ci julli gi danaa non julli naa rek pare naa quoi amul lenn lu julli gi di neex ci moom même dua su waa ji taalaloon loxo allahumma ñaan ba pare soo ne loo ci jëlee mu ne non dama doon ñaan naa rek même waa ji bu su jootee xoola yonente bi lu mu waxoon aqrabu ma yakunu al abd min du'aihi wa huwa sajid jaam bi kañ lay jege yàlla ci ñaanam fan la gën a gaaw a nangu yonente bi nee na bu sujjee bu su jootee moo tax Cheikh Abdul Aziz Bun Baaz mu ne musuma sujjóot lu dul ñetti ñaan yi duma ko fàtte sama dund yëpp nag saa yi ma sujjóotee ñaan naa ñetti ñaan yi ñu ne ko ban mu ne yow yàlla yal nag ma wërsëgal mujj gu rafet allahuma inni as'aluka husnul xaatama ñu ne ko ak ban mu ne allahuma ya musabbitul qulub sabbit qalbi ala taatik yow yàlla maa ngi lay ñaan nga saxal sama xol bi ba ma mën laa jaamu ñu ne ko ak ban ñaan mu ne allahuma inni asaluka qabla al mawti tawbatan nasu yàlla maa ngi lay ñaan balaa may faatu naa tuub tuub bu sell seex bi nee na musuma sujjóot ci sama dund li ma dund yépp ba dund gi jeex lu dul ñetti ñaan yi ñaan naa ko ci ñooñu xam nañ jaamu yàlla gi li muy saf bal nun ndeysaan jaamu yàlla yépp ala forme la forme xoolal maws mawaasim yi màng yi ñu war a màng ci ay tiyaaba xoolal fukki fan yi nu nekk tol ñu bari ci ñun xamuñu sax ne ndeke fukki fan yii nu nekk fukki fanu jaamu yàlla la comme ni nga doon profitoo ci weeru koor ba ay tiyaaba bañ laa raw ndeke yii ci la bokk ixwatal iman bi ay cheyin nastaqbilu asara zilhijja kenn ku nekk ci ñun war ngaa laaj sa bopp waaw man fukki fan yii lan laa leen di préparé nga dégg benn waay bu la tontu ne la non est-ce que am nga xar première fois est-ce que jënd nga yére est-ce que jëndal nga sa soxna est-ce que jëndal nga say doom est-ce que am nañu dàll est-ce que defaraat nga kër gi est-ce que defaraat nga salon bi pour gan yi est-ce que jënd nga paaka est-ce que jënd nga brochette weñ yooyu ngay dugale yàpp bi jënd nga ko ndeysaan hakaza nahnu nastaiddu asara zilhijja ñun noonu la ñuy préparé fukki fanu tabaski ñun amma sahabatul kiram xayru naas ñooñu nga xam ne muhammad moo leen yaroon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñooñu day ñoom nañu daan préparé fukki fanu tabaski mooy li ci njëkk mooy tuub ak tawba tuub bu sel jege seen boroom réccu lañ doon def ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal leen ndax seeni bàkkaar dañu fa bari kon ndeke ab jullit li mu war a njëkk a def ci préparer fukki fanu tabaski mooy at tawbatu sadiqa tuub bu dëgg fa ala al muslim an yastaqbila al mawasim at-taat amma بالتوبة الصادق والعزم الأكيد على الرجوع إلى الله ab jullit bu dëgg ab jullit ni muy préparer fukki fan wala jamono bu nekk ci jamono yi ñuy soññe pour nit jaamu ci yàlla mooy tuub la koy préparer ak dogu dogu gu dëgg dellu ci yàlla tabaraka wa taala mbokk yi ndax ab jullit moom war naa jóge ci yàlla léeg-léeg nu ne nanu dellu ci yàlla waaw foo xam ne boo fa delloo soo fa jógee it ñu ne la delluwaat fa kon soo demee toog fa ndax yàgg-yàgg-yàgg foofu nga jëm loo dem dem dem ku ñëw lu mu lay wax delluwaatal ci sa boroom jéggluwaatal say bàkkaar tuubal nangam lu la waa ji di soññ yëpp lu mu lay wax yëpp mooy delluwaatal ci sa borom kon kay soo demee toog fa rek nga sax fa bañ faa jógee kon dañuy delluwaat ci yàlla fa fi tawbati falahun lil abdi fi dunya wal axira yaqulu al mawla jalla jalaluhu fi az fi muhkami tanzil wa tubu ila allahi jamian ayuha almuminuna laallakum tuflihun mbokk yi tuub ci la doomu aadama di texee tuub mooy jéggulul yàlla say bàkkaar tuub nag waxuñu ni ko ni ñun nin ko déggee waaw tuub du nin nin ko déggee def lu la neex suñu waxee nga ni wax naa astaghfirullah suba nga delluwaat déedéet tuub mooy li nga doon def nga bàyyi ko Laxdari bu tuuti bi ñu jàng lim ñu jëkk a jàngal ci sartu tuub mooy an nadamu ala ma faat rëccul li passé wanni ala yauda illa dhanbin fi ma baqiya min umrihi wa an yatruka almaasiya fi saatiha wa in kana mutalabisan biha ndax dari bu tuuti bi rek loolu la jàngale ci sarti tuub kon nanu tuub dellu ci yàlla borom bi moonu woo ci suratu nuur aaya fanweer ak benn mu ne wa tuubu ila allah jamian loolu dong doyoon na waaye mu indi tawkiid ayuha almuminuun tuub leen yéen ñëpp doy na mu ne waaye yéen way gëm yàlla yi delluwaat leen ci seen boroom lu tax yow yàlla nga bëgg nu tuub mu ne laallakum tuflihuuna pour ngeen texe texe lan mooy texe mooy sori safara dugg aljanna loolu mooy texe fa man zuhziha an innaar wa udxila aljanna faqad faaz ku yàlla soril safara dugal la aljanna loolu mooy texe texe du leneen texe du am alal texe du takk soxna texe du tukki texe mooy yàlla soril la safara daal lay dugal aljanna ixwatal iman kon tomb bu njëkk bu ñuy préparé asara zil hijja mooy at tawbatu sadiq ñaareel mooy al azmul jaad ala igtinaami hadihi al ayam mooy ñu dogu dogu jël décision ferme ci temps bi fukki fan yi nga jël décision ne dama koy jaamu yàlla ba mu jeex takk mbokk yi wallahi alazim ñoo ngi giñ ci màggaayu yàlla ci bisu aljuma ci néegu yàlla kenn ci ñun toog fii wallahi su ko président woo woon ne ko soo duggee ci néeg bi génn fukki fan yi su jeexee dinaa la may benn terrain VDN kenn ci ñun bu duggee foofu du génn ku fëgg sax danaan ko bul ma déranger bul ma yàqal ku ko day day dugg foofu sax fay portable am waaw fay portable am allahu akbar wala bu fekkee da koo taal sax su ko soxnaam woowee danaan ko nañu muñ léegi ñu tekki waaw léegi nag borom bi tabaraka wa taala buuri buuri moom ne la boo defee lii di nga am lii gëmoo ko benn nit ne la boo defee lii ma def la nga nga gëm loolu da moo tax sahaaba yi rawnu sahaaba yi ñoom bu leen Muhammad waxee rek pare nañ ndax xam nañ ne lii dëgg la ndax xam nañ ne du ku leen di nax ñun nag yonent day wax bu bare ñu ne ah est-ce que wóor na yonent bi nekkatu fi de est-ce que lii wóor na wóorul de allahu akbar benn waaye dafa jàng xadis ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku njëkk a siggi imaam yàlla day def sa bopp bopp mbaam xuux waaw xadis la suñuy julli imaam nekk ci kanam sëgg ku moytuwul di ko njëkk a siggi te siggiwul soo moytuwul léegi yàlla def sa bopp bopp mbaam xuux benn waaye dégg xadis bi seytaane topp ko naan ko est-ce que loolu mun na nekk bopp mbaam xuux naka li nit di nekkee nit boppam nekk boppam mbaam xuux loolu wérul waay est-ce que hadis bi wér na waaji waaji waaji ak seytaan waaji ak seytaan ba bis yàlla natt ko mu dem imaam sëgg rek mu siggi yàlla def ñaari ŋaam yi daal di deman daal di def daal di déplacé wu ŋaam bi dem day joor ŋaam bi dem càmmoñ saa yu xëyee muy gën a dem saa yu xëyee gémmiñ gi di gën a ubbeeku yëf yi di gën a moy saa yu xëyee muy gën a moy saa yu xëyee muy gën a moy ba waa ji mënatu koo muñ mu ne day faju dem hôpital ñu ne ko lii munuñ ci dara gars yi ne ko ah demal ci borom xam-xam yi muy dem di dem ba benn bis mu dem Mauritanie mu egsi ci benn naar naar bi ne ko yow lii lu tax luy cosaanam lii lan nga lekk wala loo def mu ne teg waa yi ne ko kenn du la mën a faj lu nga wax li nga def mu ne damaa jàngoon benn xadis waa ji ne ko xadisu kan mu ne ko yonent bi waa ji ne sallallahu alayhi wa sallam mu ne waa bi nga jàngee xadis bi mu ne ñu ne ku moytuwul njëkk a siggi imaam yàlla day def sa bopp bopp mbaam xuux mu ne ma dégg xadis bi waaye gëmuma ko woon naar bi ne ko jógal mu jóg naar bi ne ko alam yakfiika qaala rasul alam yakfiika qaala rasul ndax yow yonent bi nee na doyu la loolu dong wax a gudde ñu ne yonent bi nee na kese doyu la allahu akbar ñun dañ ñaano yonent bi nee ñu ne waaye nag waaye nag yonent bi fekk na waa ji mu takk lam yonent bi jàpp ci lam bi dindi sànni ko ci suuf yonent bi ne ko boo deewoon lam bi nekk sa loxo dana nekk xalu safara bu lay lakk yonent bi wane ginnaaw gaa yi ne waa marché bi ne waa ji jëlal salam waa ji ne leen yonent bi du tekk safara sama loxo ma koy takkaat waaye nu ñoo xamoon kan mooy yonent ñun xamuñu ko alam yakfika qaala rasul al azmu sadiq ala igtinaami hadihi al ayam fa yanbagi lil muslim war na cib jullit an yahrisa harsan shadid ala imarati hadihi al ayam bil a'mal wal aqwal as saliha war na ci ab julit mu dogu dogu gu mat sëkk ci fan yii ci dundal ko ci jaamu yàlla ak def lu baax wa man azama ala shay aanahu llah wallahi ku dogu ci dara yàlla dimbali la ci ku dogu ci dara yàlla jàppale la wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku jël décision ne dinaa jaamu yàlla rek yàlla taxaw sa wet jàppale la waaw waaw wallazina jahadu fiina lanahdiyannahum subalana yàlla nee na ñépp ñi góorgóorlu jël décision man yàlla jàppale naa leen al ankabut ñetteelu tomb mooy al bu'du anil maasi war na noo sori mooy yàlla ci fukki fan yi ñu nekk nan góorgóorlu ñu sori ci mooy yàlla gis nga ay bëccëg su màggee mooy ci yàlla noonu lay réyee fi mu nekk ni ñépp a ngi préparé mooy yàlla artistes yaa ngi préparé préparé nañ soirée yi préparé nañ danse yi nii préparé nañ col gu bon gi préparé nañ lëtt yu bon yi préparé nañ yaramu neen yi wallahi bés su màggee ku ci mooy yàlla dañ la koy dubleen gis nga fukki fan yi nu rowul ak yeneen fukki fan yi de yeneen fan yi boo defee benn tiya benn bàkkaar lañ lay bindal waaye fan yi ku ci mooy yàlla dañ koy doublé ni ñuy doublé tiyaaba yi la ñuy doublé bàkkaar yi te li doy waar mooy ndeysaan da ngay def bàkkaar nga fàtte ko yàlla mu ne ahsaahu llahu wa nasuuhu man yàlla bind naa ko ñoom fàtte nañ ko mu nekk ni ñu bëri ci ñun ñi moyoon yàlla démb ak barki démb fàtte nañ yàlla bind na ko ba nga ñëw ëllëg ñu génne la registre bi mu ngi nii kaay kon nanu sori mooy yàlla al bu'du anil maasi noonu la ñuy préparé fukki fan yi fa ma kaana an altaatu asbabun li taqarrubi ila allahi taala mbokk yi sabab li tax jaamu yàlla di ko jege li tax jaamu yàlla di jege yàlla mooy jaamu ko nit bu bëggee jaamu yàlla bu bëggee jege yàlla daf koy jaamu waaye boo bëggee sori yàlla nooy def da nga koy moy saa yoo moyee sori nga yàlla saa yoo toppee jege nga yàlla wasjud waqtarib su jootal jege yàlla kon soo bëggee jege yàlla da ngay jaamu soo bëggee sori nag da ngay moy falmaasi asbabun lil bu'di an illah wa tard min rahmatihi gis nga yàlla sax du yem ci nga moy ko sori ko waaye yenn saa yi bàkkaar bi ngay def yàlla daf lay dàq ci yërmandeem su nit su yàlla dàqee nit ci yërmande fu mu jëm iblis yàlla da koo dàq ci yërmandeem ci yërmandeem la ko génne mooy du dugg aljanna mukk kon nanu moytu bàkkaar yi bàkkaar day tax yàlla seppi nit sànni ko fële soril ko yërmandeem nit ki daal di al ko loolu nañ ko moytandiku mbokk yi noonu la ñuy préparé fukki fan yu nekk ci tabaski mu des ngëneel yi nga xam ne ñoo nekk ci fukki fanu tabaski anna allaha taala aqsama biha yàlla da cee giñ sunu borom tabaraka wa taala moo giñ ci fukki fan yii ndax seenu màggaay xam ngeen ne mbir fukki fan yooyu bu ñu màggul woon yàlla du ci giñ yàlla moo ne wal fajr wa layaalin ashr wa shafa wal watr borom bi ne giñ naa ci fajar lan la ci teg mu ne wala yaalin ashr ak fukki fanu tabaski kon bëccëg yi màgg bëccëg yi rëy ci moom moo tax moom yàlla mu giñ ci loolu moo lay wan ne ay ngëneel ñoo ci nekk borom xam-xam yi nee nañ wala yaalin ashr mooy ashara zilhijja mooy fukki fanu tabaski wa hada ma alayhi jumhurul mufassirin genn wàll gi wala jumhur ñu ëpp ci firikatu alquran yi noonu la ñu firee wala yaalin ashr mooy fukki fanu tabaski ibnu kasir loolu la wax te nee na looloy li wér waha huwa saxiix nee na lii mooy li wér ñaareel annaha al ayaam al maalumaat moom mooy bés yooyu nga xam ne moom la ñu xam dafa am ci alquran ayaaman maadudaat ak ayaaman maalumaat ayaaman maadudaat mooy weeru koor ay fan la yu ñu lim day jeex ayaaman maalumaat mooy fan yu ñu xam mooy fan yi nga xam ne xam nañ ne bëccëgi jaamu yàlla la ndax depuis Ibrahima la moo tax xam nañ ko réerut tabaski boo dalee xale yi sax laaj leen histoire bi ñu ne la Ibrahima moo bëggoon rendi doomam ñépp a ko xam moo tax mu nekk ayaaman maalumaat nee na ay bëccëg la yoo xam ne dañ ci war a tudd yàlla guddi ak bëccëg borom bi nee na wa yazkaru fiha ismuhu wa yazk wa yazkuru isma allahi fi ayamin maalumat ala ma razaqahum min bahimati al an'am suratul hajj borom bi tabaraka wa taala nee na ay bëccëg la yoo xam ne dañ ci war a wax samay tur di ci màggal di ma ci màggal di fàttaliku xéewal yi ma leen ci defal muy xéewalu tabaski jumhurul ulama nee nañ ala anna al ayam al maalumat hiya ashara zilhijja minhum omar wa ibnu abbas omar ibnu xataab loolu la wax ibnu abbas loolu la wax nee na bëccëg yooyu di wax ne yàlla di wax ne nañ ci wax turam nee na ashara zilhijja la ñetteel bi mooy anna rasul anna rasula sallallahu alayhi wa sallam sahida laha bi annaha afdalu ayaami dunya bëccëg yooyu lu tax mu rëy lu tax mu màgg mooy ki yàlla yónni woon ci jaam ñi muy muhammad moom moo wax bëccëg yi ñoo gën ci bëccëg yi ad bisu àdduna fani àddina yëpp yi ci gën mooy fukki fanu tabaski kon nag mbokk jullit yi bu dee danoo bëgg tiyaaba bu dee dañuy jaamu yàlla bu dee danoo bëgg a am ngërëmal yàlla bu dee danoo bëgg a dajeeg moom tey ëllëg mu dugal ñu aljanna waxtu wu nu war a jaamu yàllaa ngi nii jële nañ ci jaabir radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na fadlul ayaami dunya ayaami al ashar yaani ashara zilhijja yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ngëneelu bési àdduna yi mooy fukki fani tabaski kon hadisu jaabir yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bés yooyu amuñu misaal nee na kenn du ci mën a kenn du ci jaamu yàlla yàlla yëkkati la nga ëpp tiyaaba lu dul waajoo xam ne afara wajahahu bi turaab lu dul ki rëpp jëm ci suuf kooku dong nga ëpp tiyaaba ñeneen ñëpp yaa leen ëpp tiyaaba kenn dong moo la ëpp tiyaaba mooy ki sujjóot ci suuf léegi nag kon boo jaamoo yàlla ci fukki fan yi ba pare sujjóot sa jëbi ci suuf kon looy am su fekkee fukki fan yi li nga fi def ci tiyaaba yow yaa raw ñëpp ba mu des ki rëpp jëm ci suuf ndax yàlla kon yow boo defee loolu ba bari rëpp sa jë looy am yal nañu yàlla wan dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillah الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله juróomeelu tomb wala ñeenteel bii wane ne fukki fanu tabaski fukki fan yu am solo la yu màgg la mooy anna fiha yowmu arafa bés boobu ñuy wax bisu arafa ci fukki fanu tabaski la bokk ndax moom mooy juróom-ñeenteel bi te yowmu arafa mooy yowmul hajjil akbar yowmu magfirati zunub yowmal itq min annaar walaw lam yakun mbokk yi bésu arafa mooy bés bi nga xam ne mooy bésu aj yonent bi nee na alhajju arafa bés boobu ci ban fan la nekk ci fukki fanu tabaski bés la boo xam ne ci la yàlla di jéggal jaam ñi waaw bisu arafa borom bi tabaraka wa taala day sëpp jaam ñëpp daan na ñi ñëpp baal naa leen waaw kon bés boobu su bokkee ci ay fan yu mu nekk kon fan yooyu war nañ xam ne yàlla tabaraka wa taala am na lu mu ci def bés la boo xam ne ci la yàlla di goreel jaam ñi ci safara yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul benn bis bu ëpp ci bis yi bu yàlla di goreel nit ñi ci safara bu raw bisu arafa kon nag xéewal yaa ngi noonu loolu dinañ ci profité fàttaliwaale mbokk yi ne dañoo war a woor bisu arafa nanu góorgóorlu léeg-léeg am na ñuy jéem a wàññi jaam ñi naan leen bisu arafa bu dajee samedi kenn du ko woor wala bu dajee ajjuma kese kese kenn du ko woor loolu wérul bisu arafa bés bu mu mun a nekk ci àdduna dañ koy woor altine ba dimanche fu mu fi fan a nekk ci bés yi dañ koy woor ndax yonent bi alayhi salaatu salaam da ko doon woor kon nag bu la kenn gàllankoor ci ay tiyaaba naan la bisu arafa su nekkee bisu samedi sël kenn du ko woor ah kay dañ koy woor bisu sam bisu arafa bu nekkee ajjuma sël kenn du ko woor hadis bii dàq loolu ku dem ci buluugul maraam da nga fekk Malik daf ko dàq Abu Daawuda man suuxal hadis bi kon nag nanu bàyyi xel ci loolu mbokki jullit yi beneen bii wane ne fukki fan yu mujj ci tabaski ay yiw moo ci nekk anna fiha yawmu nahr bis bi ci la ñuy rey gàtt yi ci la ñuy rey xar yi wa huwa afdalu ayaamu sana bés boobu ñuy rendi gàtt yi mooy bés bi gën ci bés yi inda baadil ulama ci lenn ci ay borom xam-xam lu ñuy wax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na azamu ayaam inda allahi yawmu nahri waaw yenent bi alayhi salatu wasalaam wax na ci xadis boo xam ne abu daawuda solo na ko ak nisaa'i cheikh nasiruddin albani wéral ko nee na bés bi gën ci bés yi ca yàlla mooy bés ba ñuy rey gàtt yi kon bés boobu fan la nekk ci fukki fanu tabaski juróom benneel mooy ijtima ummahatul ibadat fiha mbooleem xeetu jaamu yàlla yi dañ koy fekk ci fukki fanu tabaski dañ ciy aj dañ ciy julli dañ ciy woor dañ ciy saraxe lu nekk dañ koy def lu nekk ci xeetu jaamu yàlla yi zikr jàng alquran jaamu yàlla mbooleem jaamu yàlla yi foofu nga koy fekk ci fukki fan yu mujj ci tabaski moo tax mbokki jullit yi ñuy soññ suñu bopp di leen soññ ñu góor góorlu ci jaamu ci yàlla ñu bàyyi xel suñu borom tabaraka wa taala bëgg gim nu bëgg moo tax mu nuy programmeel jamono yu nekk waxtu yu nekk ay jamono yoo xam ne waxtu yoo xam ne buñ ci jaamoo yàlla ay tiyaaba la ñuy am ñu góorgóorlu bu baax xam ne fukki fan yi fukki fanu jaamu yàlla la fukki fan yi nit di waaja la pour am tiyaaba boroomam waaye du ay fukki fan yoo xam ne caaxaan duglu ci mbirum àdduna nekk ci ginnaaw àdduna di daw di tërërëri ah te li ngay dàq doo ko jàpp mukk soo dawee par exemple génn nañ kori xool leen korite ñi nga gisoon fii ñuy tërërëri ci korite yëpp ana korite ma nga ne la dem na bu yàgg su fekkoon ne dañ cee jaamu yàlla am nga tiyaaba yàlla defal na la bu fekkoon ne bàkkaar nga ci def bàkkaar yaa ngi enregistré li waa ji di wax mu ne mooy yàlla ndeysaan nit day jël benn mbir di ci mooy yàlla mu am ci bànneex su moyee yàlla ba pare yàlla bind bàkkaar bi moom quelques minutes quelques secondes bànneex bi daal di dem waaw même bu dee lekk lu mu neex neex tiimal nga lekk rek tiimal nga lekk benn waay day nettali nee na ci histoire Sénégal dafa amoon xiif nee na boobu ñiy lekk lu bari ñi fiy lekk lu bari bëriwul waaye militaire yi moom bokk na ci ñu doon lekk nee na benn sàcc day bàyyi ba guddi rek mu tëb miiru miiru kancaaro yi dugg dem fi ñuy toggee lekk yi rek mu tiim ci boolu ginaar yi bu gaa yi ñooy di séddale rek ginaar yi manqué ñu ne waaw mais soldats yi dañuy sàcc wala nu mu demee nii colonel bi ne il faut ñu monter ay commando el bu nekk ñu teg fa ñetti nit masque leen ñu tëdd ci suuf si heure bi jot rek waa ji yéeg tëb ñëpp di ko gis muy raam di raam ba yegg si toog tiim boolu ginaar yi jékki-jékki rek benn militaire génne pistolet bi rek armé ko kar kaj teg ci nopp bi mu xool gis ñëpp tiim ko ñu ne ko lekkal mu lekk lekk lekk lekk lekk ba ci àgg mu xool leen ñu ne ko lekkal mu lekk lekk lekk lekk lekk ba ci àgg ñu ne ko lekkal mu daal di jooy ñu ne ko nga tiim boolu ginaar ngay jooy mooy dafa neexatul neexatul ci moom léegi nekkatul ginaar yu neex mais ginaar yi ne safatul sax ginaar neexatul parce que am na fu xelam dem voilà loolu mooy mooy yàlla mooy yàlla da nga koy def léegi après jeex na yàlla enregistré na ko neexaay bi jeex na ci yow léegi nag gis nga jaamu yàlla dafay métti waaye yàlla enregistré ko nga julli nga pare nga woor nga pare nga jaamu yàlla nga pare nga métit bi dem na tiyaaba bi des na métit bi dem na tiyaaba bi des na amma mooy yàlla neexit bi dem na bàkkaar bi des na loolu lañu war a xam gis nga buñ ne suba la tabaski ginnaaw suba la tabaski nangam nangam gars yi commencé dem soirée ñëwaat daal di tëdd ana neex neex ba dem na yàlla bind na bàkkaar bi allahu akbar kon yéen ñi nga xam ne da ngeen a julli si jumaa tey te di préparer tabaski di préparer soirée jëndi seen i dàll ak ah seen i tubéy seen i séenti rek seen i jiin ah préparer ak ñi ngeen war a àndal di mooy yàlla bàyyi leen xel seen boroom bàyyi leen xel seen boroom bàyyi leen xel ci bàkkaar boobu neexit bi day jeex ci yow ay minute ay bàkkaar bi yàlla bind ko jaamu yàlla gi nga toog muñ jaamu yàlla gi nga nekk xëy na toogaay bi metti na fanaanoo naafila bi metti na sujoot bi yàgg na koor gi metti na jàng alquran bi waaye nag mettit bi day jeex tiyaaba bi daal di fay des waaw te li des moo am njëriñ wa amma ma yanfau nnas fa yamkusu fi l ard lii baax day des bu fekkee nag li amul woon njëriñ li amul woon njëriñ yàlla da koy bërëng mu daal di ànd ak taw bi daal di dem mbokk jullit yi yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko yal nañu yàlla woon dëgg allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaaba allahumma inna nasaluka qabla almawt tawbatan nasuux wa inda almawt shahaada wa bacda almawt jannatan wa naciman wa mulkan kabira allahumma ixfir lana qabla almawt warhamna inda almawt ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله